ziar di ñun ay 100 pour cent Balla Gaye lañ dañoo bëgg Balla Gaye barki Seydouna Mouhamed mbapat lañ ko topp ba arène yaa ngi dégg mais damay ñaan Balla Gaye laay war a sóori moom mu bàyyi làmb parce que bu bàyyiwul làmb ñun ñooy dee stade midi lañ toog stade lekkuñu naanuñu barki Seydouna Mouhamed ngir yàlla message la bu ma koy lancé na bàyyi li ñu soxla woon yëpp defal nañu ko amatuñu dara moom lu mu ñuy prouver ci làmb li ñu soxla woon yëpp Balla defal nañu ko na tekki ngembam ngir yàlla jëm Serigne Saliou Mbacke mu ñu bokk. lu tax ngeen dafa war a bàyyi. dafa war a bàyyi parce que doole ci xale lay ne. doole ba yàlla ay ay ay nekk. na ci ay tolof tolof dëgg la mais dama ne la ñun ba ñuy topp Balla Gaye ñu ko xam bëriwul Birahim Ndiaye ak sama papa seen yaay ñoo bokk nday ak baay da ko daan tëggal combat. lendemain tabaski terrain 22 ñuy dem ma ñooy tingoom may seetaan Balla Gaye dama bëgg Balla Gaye barki Seydina Mouhamed mais na bàyyi bëre jàppale saa kees. ma pikin nga xanaa noo gisee tey laamu ji. ah laamu ji yàlla. man Balla la laa mais xam nga rek mais amu ko boo ñëwee dama koy encouragé pikin laa dëkk dama koy encouragé waaw man ba. mais Balla Gaye nga xool waaw Balla Gaye Ama rek wax dëgg fa yàlla waaw ñoom rek waaw Balla Gaye daal waaw sama sama sama mbër la dem mais sa combat dama koy supporté yeneen yeneen tey moom Balla Gaye fara wax dëgg fa yàlla waaye waaw kii moom kii nga sa booy ñaa sama sama mbër la tamit dama gis ni Balla Gaye dafa war a bàyyi loo koy waxee non bu mu bàyyi parce que man Balla Gaye sa moom Issa Pouye laa commencé supporté ba heure bii bu mu bàyyi na bàyyi ba si kanam ah li ma koy conseillé daal na entraîné waat bu baax na déedéet ah, màggetul de Balla xale bu ndaw la pareegul barke Sëñ Bakos pareegul xale bu ndaw pareegul jeexalul ay ñoo ay ñoo booy ñaay man laa dëkk du ragal man laa dëkk doomu Pikine laa du ragal mais Balla Gaye la affaire bi Balla Gaye la ñii ñëpp ay doomu Sénégal lañu ndam li tamit Sénégal fii lay nekk waaw ay jeex xeex ak yi jaru ko nañ kaf ree fu mu dugg tamit dafa kii parce que gis na Eumeu Sène tamit gis na Eumeu Sène mais moom moo fayee combat parce que yow ba ba nga ba nga jëli jee boo jël tànk bi nga tànk bi dis si yow war nga bàyyi nga reculer waat toog xaaraat boo xool ba xam booy du fekk si mais booy daal la dafa ñëw saax saaxee combat bi moom moo yàq combat am pression bi maanaam lu mu daan lu mu Sa Thiès mu ko ñëw waa xëy na lool tamit loolu tamit ci la bokk mais mais ba mu daanee ba ba mu ba ah boo ñaañee daan euh, lu koy def ba mu boo ñaañee daan saa moom waroon nañoo xaar toog def ndànk xaaraat man doomu Pikine laa man du ma aw ma lu man ba Ama ah, Baldé ba keroog may dee barke Sëñ Babacar Si Balla Gaye rek Balla rek Balla Gaye Ama waaw moom kase feneen beneen mbër bu dee na ah, booy ñaar day bëre feneen mën naa faral ndax combat bi passé moom ak kii man moom laa faral moom laa faral combat bi passé booy ñaar laa faral barke Sëñ Babacar Si mais affaire bi daa affaire pikin pikin pikin géej waaye loolu dara amul histoire amul dara waaw jàmm rek yow dimbali ma pikin moo gañe tey ñëpp kontaan booy ñaan nag ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam ne yàlla na ko jik Balla nag ñëpp xam nañ ko doon supporté waaye nag tey noonu la da ngay daan ëllëg nga daanu waaye ku ne xam ne Balla mbër la man jëkk jabaram sama xarit la ñëpp xam nañ ko waaye nag yàlla mooy dogale noonu bëre moom daanu ak daan rek la waaw ña nag ñaal nag ki am ndam yàlla defal ko. mais looy wax si gars yi ne Balla Gaye dafa war a bàyyi parce que dafa màgget waaw xam nga xam nga làmb noonu la ñun mu Moustapha Guèye loo fi nekkoon di daan du dëgg. kon tey bu demee ba demee nii dañ koy comprendre rek xale yi ñoom may xale yi sens ku nekk sa sens rek la affaire bi loolu la dafay changé tey ci affaire àdduna bi mooy cenc ñu ci 2023 lépp nii lay demee nag. mais dafa duggaat fenn si Eumeu Sène. waaw ah kooku la. ah ndaanaan la kooku suñu mbër la ndaanaan la Pikine la ni mu def tey dafa rafet la def tey ñëw ànd ak rakam stade bi toj loolu la yàlla dogal ñu ne Pikine lañ dëkk loolu la yàlla bëgg amu ragal. amul sóoraal waaw bu sama xarit la moom. waaw xolam neexul dëgg waaw muñ rek yàgg naa daan di ñu bégal waaw waaw demale pikin ragal du fii dëkk père lay nu waaw moo daan ba léegi seetaan ma jëli ji ku daan ah moo daan félicitations ah, neexa daan si mbër yi tey yii la may yii yii yii la may bébé. Eh, lii la bojo bojo la. Eh. teel dama ne. boo ñaan man njëkk a bongo lu ma dara solo yombul. waaye ne. boo ñaa la fu foo nekk. ñëpp la leen man. yaa leen man. yaa leen man. ndey du ñu sa baay yi yamul mën boo ñaa mën yaa mën yaa mën ndey du benn te baay yi mën ku yëngal boo ñaa mooy yëngal ku yëngal boo ñaa mooy yëngal wax leen way ah! way dama ne Sénégal kaay gaaw boo mu njëga bongo moo ko yëngal gan gan gan gan gan booy bi bu daanul woon tey bu daanul woon tey billaay wallaay lamb ji dina. lu tax lu tax ma wax loolu. lamb ndaw la yàlla faral. gannaaw Balla Gaye ay guddi daf ma doon fay mais ra an yi année ñu nekk booy ñaa moo may fay déggoo de. lii loolu. mooy lamb lamb xale. booy bi déggoo leen mu ko wax xanaa ku dàq bëre ku ëpp doole ku gën a sonn yàlla na la yàlla may ndam wala déggoo loolu déggoo mu ko wax xam nga tey jii Balla Gaye ku ne xam na ne champion la boo ko waxee wax nga làmb mais cey doomu dégool bi cey doomu doomu aana bi kooku xolo xam nga lan mooy problème bi kooku kooku daa boppam li tax mu ñaanal boppam mooy ndey ja ndey ja da ko faa xaar barki borom Touba. da may nag leen xam. bu baax dako koo daj da koo daj moo tax bis bii du ko ñàkk Balla Gaye daa am lu ko wax dana ko ku daan ñun ñaar na dem gërëmi ji yaayam booy ñaa ne ko booy ñax tontuwu ko bañ a jël. nga na jël. jël jël. combat bi lamb moo wanewaat boppam ndax euh, lamb moom bu dee da ngay suivre lamb lamb mooy wane boppam lamb ndaw moo koy def xele mooy bëree sport sax laay wax Balla toll woon ne guddi yu mel nii am na ay mag yu mu fekkoon jëlee leen fi ala kuleyaalin xale yee ko fiy jëlee mais nag dafa nekk loo nga xamante ni tey Pikine dafa booloo nekk kenn ndax boo xoolee Eumeu Sène bi mu duggee Reug Reug dugg loolu day dooleel mbër day jox mbër euh, fit dalay jox jom tey nag lamb moo wane boppam ndax euh, boo xoolee Boy Niang yàgg naa topp Balla Gaye Balla ne ko jëlal sama rak bi mu jëlee rakam daan ko Balla mënul koo moyt moo tax li am tey ji am ndax garab ci kaw rek la ñuy fekkente